asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi topp jotaay yi nga xam ne moom la daayiratu muxaddamatul xidma di amal ci weeru koor wi noo ngi leen di nuyu bu baax fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla yépp di ko ñaan mu tawfiqal ñu ñu àggale ko te mu nangul nu ko te nu fekke waat ko at yu baree baree bari ñuy yëkkati ab ziyaar di ko jëmale ci suñu kilifa di cheikh Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootuk cheikhul xadim ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bu rëy bi nga xam ne ci la nekk di ziyaare bu baax kenn ci njabootam gi nga xam ne moom la féetale liggéey bii di sémb bi mu sémb ci wàllu jàng ak jàngale ak yare muy cheikh ahmad al badawi ibnu cheikh Mouhamadul Fadil ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di ziyaare bu baax eh, waa daairatu muqaddamatul xidma di ci jiital eh, suñu kilifa cheikh aafiya al imam di ko ñaanal yàlla moom it yàlla yokk ko wér yokk aw fanam ak mboolem ñi mu àndal liggéey bu màgg bi di leen sant bu baax a baax ci jotaay bii ñu amal ca jëmale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaka sumb waaye di sant ci e, sàkku gi ñu sàkku ci nun nu taxawe ko te ñuy sant yàlla bu baax mu ñu baaxe ñu nekk ci di ci yëngu di ñaan yàlla mu àggale ko ñun ñépp nu fekke ko sëriñ bi ubbi ko njariñ liñ ciy séentu lépp suñu boroom def ko ci xam naa ngir laltaay waxtaan wi rekk xam nañ ne euh, yoonu cheikhul xadim radiallahu anhu yoonu murit taxawal ay sémb yàgg na fee am simb yoo xam ne mbooleem yoon wi ñoo koy ànd taxawal ko tàmbulee ko ca jumaay njaareem ci 1918 yi nga xam ne ca lañ ko tàmbali liggéey ba jaar ci jumaay tuubaa ji ak yeneen liggéey yu rëy yoo xam ne ay simb la yu ñu naal ànd ko liggéey ko lépp ci ndigalul sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ginnaaw jumaa ji gis nañ fi semb yu mag yoo xam ne ñi fi toogal sëriñ bi danañ koy yëkkati ànd ceeg taalibe yi ñu di ko taxawal ba li ci gën a jege mooy jumaay masaalikul naan ji nga xam ne bi ñu ko ubbeeg léegi yàggugut mel ne kon boobaak léegi ay sémb mosu fee jóg yooyu yëpp di jëmmal rekk yitte yu kawe yi nga xam ne ci la sëriñ tuba radiallahu doon yar taalibe yi mooy alhimma bu ñëwee ci wàllu jàng ak jàngale muy wàllu éducation gis nañ ne yoonu murit am na ci ay liggéey yu ama ama am solo yoo xam ne def na ko ci gis nañ fi ay jàngukaay yu mag yoo xam ne ña àndoon ak sëriñ bi ci ndigalul sëriñ bi ñoo ko taxawaloon muy buñ ñëwee ba ci daara yi sëñ mët dem daara yi Cheikh bu Bousso ñu bari dégg nañ ko ba ci daara yi sëriñ Xabibu ak daa kër yu mag yépp ay daara la ñu gis fi ay maahid mooy ay jàngukaay yoo xam ne eh, ay kilifa ci yoon wi taxawal nañ ko fenn fu nekk ci réew mi tàmbulee ko ci maahid yi nga xam ne cheikh mohamadul murtada radiallahu anhu moo ko taxawal ba ci maahid yi nga xam ne cheikh ahmadou mbàkke moo ko taxawaloon ak yeneen yoo xam ne njabootuk sëriñ bi taxawal nañ ko ak taalibe yi mu mel ne loolu lépp ay jéego la ak i taxawaay yoo xam ne mësta dakk ba gis nañ sax bu yàggut rekk jaamiat Cheikh bàmba Bamba bi nga xam ne dafa wàll dafa jëm ci jàng ak jàngale ak formation loolu lépp jëm ci rekk di jëmmal bëgg-bëggub sëriñ bi bi nga xam ne mooy ñépp jàng ñépp xam seen diine waaye ñépp defaru mu mel ne kon Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahu llahu ayadahu wa nasara bi ko yàlla tege ci bopp yoon wi daa yëkkati ab sémb boo xam ne dafa jëm ci wàllu yar wàllu jàngale wàllu formation woo ci murit yépp ngir ñu ànd ak moom ci liggéey boobu waaye murit yépp ànd maase maase wuy ko ci ba tey ku dem ca barab ba ñuy taxawal sémb boobu danga gis ne liggéey ba ma ngay sori moo tax kon waxtaane sémb boobu nga xam ne ci lañ toll di sémbub murit yépp sémbub jullit yépp sémbub réew mépp kon waxtaane ko lu jaadu la ngir ñu fàtt bëgg ci lañ bëgg a tënk waxtaan wi bu ñu seetloo bu baax a baax taxawaayu cheikh mohamadul muntaka dañuy gis ne ku yittewoo xam-xam la naka jekk yittewoo gim yittewoo xam-xam feeñ na ci ay waxam feeñ na ci ay jëfam ndax yàlla dafa def muy boroom xam-xam bu bëgg xam-xam bu sopp ñi nga xam ne ñooy niti xam-xam xam bu baax lii valeuru xam-xam ak ni mu doone lu mënta ñàkk ni mu doone cëslaay ci yoonu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ku déglu ay waxam ak i discours am da ci dégg lu bare bare muy dellusi ci ni ñu war a góorloo ci xam-xam danay faral di wax ne war nañu góor góorlu dellusi ci suñ bopp xam ne li jiitu ci lu ñu war mooy taxawu njaboot gi kon njaboot gi li ñu ci war mooy ñu xamal leen yar leen yar boo xam ne ci lañuy mën a xame sëriñ bi xam gu wér danay wax ne wut xam-xam munta ñàkk loolu nag ñépp ci yam rawatina ñi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ Tuuba mu ne sëriñ bi fàggul nañu lépp lu ñuy jariñ àdduna ak àllaaxira kon li des mooy fàggu xam-xam rek mu ne bu ñu xamoon li nga xam ne moom lañu xam-xam di jox ci ay njariñ ni ñu xamee ni ñuy jariñoo ci lekk ak naan kon kenn ku nekk dana gën a góor-góorlu ci sàkku xam-xam ba am ca lam ca war a am mu ne amul jenn jëfit joo xam ne mën naa wéy ca lal laltaayu ko kon loolu lenn la ci ay waxam yoo xam ne ak yeneen yoo xam ne ku ko yàgg dégg yàgg koo topp danga gis ne ku jox yitte yar ak jàngale ci ay kàddoom la waaye kàddu yooyu sëriñ bi waxtu wu nekk da koy jëmmal ci ay jëf ndax moom ci boppam rekk dafa sonn góor góorlu ba am xam-xam bu yaatu waaye yëmu ca taxawal ay jàngukaay yoo xam ne yu yaatu la yu am solo yoo xam ne dañu fay yare di fa jàngale waaye yëmu ci ku ne xam na ci moom ni mu ni muy terale boroom xam-xam yi ak ñi yëngu ci xam-xam àgg na ci jagleel leen bis boo xam ne da koy yendoog ñoom at mu jot ñi yëngu ci xam-xam ci dëkk bi teral leen soññ leen dénk leen ñaax leen loolu yàgg na koo def lu jiitu muy nekk ci bopp yoon wi loolu lépp rekk kon day jëmmal ak bëgg xam-xamam ak yittewoo ak xam-xamam ak fonk gum fonk yar moo tax li mu njëkk a muy sembu boppam jiital ko mooy naal wi nga xam ne naal na ko muy projet bu mag bi nga xam ne taxawal na ko muy mu jëm ci wàllu jàng ak yar ak formé ca loola it da ko sof rekk ci bëgg-bëggub sëriñ bi nga xam ne moom waxaloon na boppam ne bil mustapha li banal qudduusu madrasatan biha yazulu l aza wal jahlu wal kabadu muy daara jooju nga xam ne ñi ñi jiitu woon sëriñ bi ñépp kenn ku ci nekk day lii mu sémbu dafa dugg ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Tuuba ci xidma bi la dugg feeñ na ci ne yàgg naa nëzër daara joo xam ne ñépp a koy bokk mu nekk daara joo xam ne dafay mottali yéenay sëriñ Tuuba ji nga xam ne amoon na ko ci am fi jàngukaay boo xam ne fu lu waay soxla xamlu ci sa diine ci lu lay jariñ danga ko fi xamlu see feeñ na ca kàddu yooyee ne li nga xam ne moom lañu fi sëriñ bi bàyyeel liñ koy mën a dundaleel mooy xam-xam moo tax ci biir kàddu yooyee wane na ci ne li jiitu ci li nga xam ne mooy yitteem mooy xam-xam waaye wane na it lim bëgg ci biir jotaay boobu wane na lim bëgg mooy jàngu boo xam ne day tàmbulee ci suuf ba ca njobaxtan la muy lu matale sëkk wax ne moom léppam dana ko ci jëmale ngir mu sotti kàddu gu am solo ci kanam njaboot gi mu feeñal ci biir nga nga nga mën a dégg ca kàddu yooyu boo ko dégloo bu baax a baax xër gu sëriñ bi xër ci liggéeyal sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waaye nag liggéeyal ko ci wàllu xam-xam waaye liggéey boo xam ne day tolloog jamono ba waa jamono jëpp man cee jariñu danga dégg ci biir waxtaan woowu xabe ci sëriñ bi gis-gisam bu sori ak yitteem ju kawe ku am li ñuy wax vision bu sori la ndax koo xam ne ma ngay xool bay tudd ñetti téeméeri at di xool dëkk yoo xam ne am nañ lu ëpp junniy at ñu xam leen ci xam-xam xam leen ci yar mu bëgg tuubaa yéenay sëriñ bi àgg ba fu ñu tëdd tudde dëkk yooyu tudd fa tuubaa Touba mën naa dem sax ba jiitu dëkk yooyu ci wàllu xam-xam lépp ci ab pësteef lay aju ak dogu ak pas-pas waaye ñu gis ci biir jotaayu sëriñ boobu ak waxtaanam li nga xam ne wone na ko ci fonk ak doyloo njabootuk sëriñ bi ba yëkkati naal wutal nii jiital leen ci teg ko ci seen loxo jiital ci nag daayiratu Rawdu Rayaahiin di nga xam ne sëriñ Ahmad Badawi Cheikh Mahamad Fadil moo ko jiite kon loolu lépp rek dañ koy jànge ci biir jotaay boobu nga xam ne moom la toogoon ci 5 février 2018 yëkkati kàddoom yu am solo yu riche lool yoo xam ne loolu lépp mën nañ ko cee jàng kon loolu dañ ko doon wane rek ci sëriñ bi ni mu yittewoo woon ni mu yittewoo xam-xam ci ay waxam ci ay jëfam ba lii projet bi ñëw jëmmal loolu lépp kon nag fi projet bi jaar xëy na loolu lu lu gudd la waaye dañ koy tënk rek ci wane ne sëriñ bi day bi mu wootee woote boobu joxe ndigal loolu ñi nga xam ne ñoom la jiital ci liggéey bi ci jiital sëriñ Ahmadu Badawi ak daayiratu Rawdaan ak mboolem ñi yëngutu ci xam-xam ci yoon wi ak fuñ mën a nekk dañoo daal di songu liggéey bi ngir jëmmal bëgg-bëggub sëriñ bi ngir jëmmal gis-gisu sëriñ bi daal di nosu yi woo xam ne la sëriñ bi waxoon ne dafa bëgg jàngu boo xam ne day tàmbale ci suuf ba ca jobbaxtal la ñu jàngat la nekk ca biir loolu lépp waaye it sëriñ bi dàkk bi mu dàkk ni bëgg na tuubaa yegg ci dëkk yu xam-xam yi ñu xam lu mel ne madinatul munawwara basra kuufa loolu ab junj la ab junj la moo tax ñu ne kat fii moom li jiitu ci am njàng mooy njàngum alquran ñu daal am ñu féetale dénk leen ñu saytu daara ji nga xam ne mooy féetewoo njàngum alquran kon créer ay commission technique yoo xam ne ñoo taxawu liggéey boobu moo am commission boo xam ne moo doon liggéey ci wàll njàngum alquran ndax mooy base bi mooy fondement bi lépp lu ñuy xam-xam bu ñuy tabax ci lislaam ci alquran lañ koy balloo ci alquran mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi jiitaloon ci lépp moo tax alquran jooju moo jiitu mu am commission boo xam ne njàngum xam-xam ñi nga xam ne moom la ñuy wax majalis te réewi lislaam yu mag yépp réew moo dem ñu am seen njàngum cosaan moo xam ne xam ba ca nekk duñ ko sàggale wenn waxtu dañ koy dundal dañ koy fonk nga xam ne base lay doon boo xam ne ku ca déparé lépp luy xam-xam da ko mën a rafetal muy majaalis ñu xam ko ci dëkk bi mu ànd ak yoonu murit ñu xam fi ay daara yu mag jàng moomu kon am na commission boo xam ne moom la féete woo woon di ca liggéey ak commission boo xam ne jàngu yi fi nekk te nekk njàng moo xam ne dafa am ay cycle ay maraaxil muy marxala ibtidaaiya i'daadiya ak taanawiya ñetti marxala yooyu am na commission boo xam ne moo ca doon liggéey ngir xoolaat programme ya saytu ko tëral ko anam goo xam ne dana dëppoo ni sëriñ bi bëgg ci anam goo xam ne lépp lu ñu soxla ci xam-xam dana ko danañ ci mën a waajal ka ca nekk ba fu mu bëgg a àgg ci wàllu xam-xam mu mën faa àgg mu am commission boo xam ne it dañ koo bàyyil xel ñi nga xam ne dañoo mokkal alquran ca bu ñu leen bàyyee ñu dugg ci système bi ci at yooyu loolu mën na leen gàllankoor te seenu seenum xel ak seenum ñaw may na leen ñu am programme spécial boo xam ne at yi ñu weesu woon ci njàngum alxuraan du gàllankoor dara ci liñ war a jàng ci système bi kon muy commission alquran commission majalis ak commission bi nga xam ne moom mooy madrasa nizamiya mooy jàngukaay yi nga xam ne dafa am ñetti cycle yooyu ma wax ak bi nga xam ne moom dañ koo jagleel ñi mokkal alquran ndax ku ne xam ne dëkk bi dëkku alquran la li ëpp ci gone yi dañuy mokkal alquran doog a tàmbali meneen njàng moom it ñu bàyyi leen xel ak beneen commission boo xam ne moom mooy enseignement supérieur ndax sëriñ bi ni mu waxee ku dégg ay waxam da xam ne buñ nee ci suuf ba ca njobbaxtan la njobbaxtan la mooy enseignement supérieur nit ki fa nit war a mën a yem ci gëstu ak jàng loola daara bi waajal nañ ko noo xam ne man nit ku fi nekk mën ngaa àgg foofu kon juróomi commission yooyu boobu lu tax mu tërale ko noonu mooy sëriñ bi ni mu waxee boo ko dégloo bu baax da ngay xam ne ab système éducatif boo xam ne dafay matale ci niveau yëpp matale ci fànn yëpp moom lay junj moo tax ci loolu ci lañ liggéey ngir bu ne bëgg na Tuubaa mel na dëkk yëpp loola ku ne xam na ne muy dëkki xam-xam yu mag yi Madina Kuufa Basra yu xam leen loolu bu ko waxee ab junju ci ne kon li ñu wax nahda ilmiya la bëgg mu am mooy li sëriñ bi naaloon ci dëkk bi ci lépp lu waay bëgg xamlu ci ci diineem ci xam-xam bu am njariñ mu mën ko fee xamloo kon loolu ab système moo ko moo koy maye moo tax kon ci loolu biñ ci liggéeyee ci lañ tëral programme daaray alquran ak nam war a doxe teg ci daaray majalis ak nam war a doxe waaye teg ci programme jàngukaay yu tàmbulee ci marxala ibtidaaya muy cycle primaire ba cycle secondaire moom it ñu tëral programme yoo xam ne dañ koo sukkandiku ci programme yi nga xam ne mooy njàngale bi fi nekk ñu xool la ca war a dolliku ci dëppoo njàngale bi sëriñ bi ñu dugal ko ca xool la nga xam ne mën nañ ko ca génne te du yàq ca lañ war a xam wala lañ war a mën dara lépp ñu liggéey ko ba mu na ba mu dëppoo ñi nga xam ne mooy gis-gisu sëriñ bi ci wàllu jàng ak wàllu yare kon am nañ programme boobu waaye amal nañ programme it ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran nga xam ne shahada wala diplôme bi yi nga xam ne moom la am mën a ame ci école formelle yi dinañ ko ci mën a amee ca duñ am benn tardement ci seenu njàng waaye wut tëral ay programme ngir ñetti faculté yoo xam ne dinañ ko détaillé ci kanam tuuti kon loolu boo gisee ñu liggéey ko mooy sëriñ bi ni mu waxee ci lañu dégg ne kon ab système la war a doon boo xam ne bàyyiwul dara ci anami njàng yi ak ci xeeti njàng yi phase bi nga xam ne nag moo jiitu ci système boobu te dëgg-dëgg muy établissement wala ab jàngukaay nag boo xam ne day soqikoo ci biir programme yooyu mooy daara jii nga xam ne moom la sëriñ bi naal ndax daara jii sëriñ bi naal nga xam ne tey liggéey ba tàmbali na ba sori lool moom ci programme yooyu ñu tëral am na ñett yoo xam ne moom lañ fay tàmbulee moo tax sëriñ bi tudde ko mu jamma mu jamoo cheikh ahmadul xadim li tarbiyati wa takwin muy complexe cheikh ahmadul xadim ngir yare ak ngir former loolu kon mën nañ ne ab établissement la ab jàngula ci biir ab système bu yaatoo yaatu loolu dafa mat nit ñi bàyyi ko xel daara ja semb bi ñu bari la baatub université dafa gën a not ñu bari di wax université waaye ëpp na université ab mujamma la ab complexe la boo xam ne dafa ëmb njàngum alquran ëmb njàngum majalis muy xam-xamu diine xam-xamu lislaam waaye ëmbaale ab université ci biiram kon complexe la bu yaatu boo xam ne yooyu ñoo nekk ci biir complex boobu nag nga xam ne ay programme am bind nañ ko ba noppi ci lépp ci ni ko sëriñ bi bëggee woon ñu gaarale ko noonu leeral nañ ci programme complex bi li nga xam ne moo tax complexe bi jóg muy mu jamaa bi leeral nañ ci li nga xam ne mooy ruya bi ko lal muy vision bi ko lal wala gisiin bi ko lal leeral nañ ci li nga xam ne mooy objectif yi nga xam ne moom lañ ciy séentu waaye leeral nañ it programme ya ca war a nekk yépp ba tëgg ko loolu yépp it luñ ci def mooy na ko sëriñ ba bëggee woon sëriñ Ahmad bi nga xam ñu koy nuyuwaat ndax mu ngi ci jotaay bi eh, di ko ziyaare bu baax a baax fuñ ci toll koy gaaral sëriñ bi déglu ci bëgg-bëggam déglu ci xalaatam ba lépp dëppoog ni mu ko xalaate woon lañuy leeral ci jubluwaayu mu jamaa bi mooy rekk bëgg-bëggub sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax sëriñ bi ku ne xam na ne dafa bëggoon ñu boole ñett al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabul mardi loolu sax mooy devise complexe bi maanaam mooy shiar bi nga xam ne mooy màndargam jàng bi ndax ñett yooyu xam-xam bu ànd ak jëf waaye bu ànd ak ay teggin kon loolu mooy chaar bi moo tax daara ji li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy yar nit ñi former ko mu boole xam diineem bu baax a baax waaye xam am man-man ak compétence yi nga xam ne dund gi laaj na ko développement laaj na ko fi àdduna tollu laaj na ko kon li jiitu mooy forme ak jàngal nit ki formation bu matale ndax bokk na ci jafe-jafe yi ñuy am ci àdduna bi njàngale moo xam ne da dul boole compétence yi nit ki war a man ak jikko yi mu war a melowoo ak aw nekk nekkinam loolu ay jafe-jafe la waaye li jàng bi moom li ko tax a jóg mooy xam-xam bu ànd ak jëfe waaye ànd ak ay teggin ak i jikko waaye dundal gëstu ak yaatal xam-xam ci anam goo xam ne mënees na ci jaare développer réew mi ba sax lu weesu réew mi ba sax bokk ci luy jëmale kanam àdduna waaye bokk na ci liggéeyu barab bi jàngu bi mooy tasaare njàngaleem lislaam tasaare valeur yi lislaam indi ci àdduna bi yépp waaye nag jaarale ko ci ñi nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngalee nga xam ne kon gis-gis bi ko lal rek mooy li sëriñ bi waxoon ne bëgg na Tuubaa mel ni bay wax ne wajaalhu daban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi kon loolu lenn la rek ci yoo xam ne ndax lu ci baree bari du ñu mën a àgg ci détail yépp waaye dañuy joxe ay junj rek bu ñu demee nag ba ci biir daara jooju nga xam ne moom la sëñ bi naal ci liggéey ba tàmbali ba sori lool am na fa ñeenti pôle maanaam ay waxdaat mooy ay pàcc bu ñu demee dañ fa fekk pàcc boo xam ne moo jëm ci daara yi alquran daara ji ni mu ni muy tëddee nañ fay jàng nañ fay natte ñay jàng ak nañ fay duggee nañ fay nekk lépp moom it dënk nañ ko ba nga xam ne amul maanaam daanaka mën nga ne luñ mën a daal di tàmbalee jëfe la mënees na koo jëfe waaye biir daara ji nag infrastructure yi nga xam ne moom moo aju ci daara yi alquran ji am na fa ay dëkkuwaay ay bâtiment yoo xam ne dañ fay dëkk man ñett ak batiment yoo xam ne fala la ñuy jànge ak centre boo xam ne dañ fay centre de santé la ak ab restaurant kon loolu mooy li nga xam ne boo demee ca daara bi moo fa nekk ci ay infrastructure yoo xam ne liggéey ba sori na lool mu amaat beneen pàcc boo xam ne moo jëm ci daaray majalis ji nga xam ne moom it tënk nañ programme yi séddale ko ci ay niveau ba nga xam ne ku ca génne da nga mën a am niveau lisance mën a yeggale sam njàng ba def master ba def doctorat ba doctorat incha allah mu doon moom it ñu jagleel ko fa ay barab yoo xam ne bâtiment yoo xam ne fa la ñuy jàng bâtiment yoo xam ne am na restaurant ak bâtiment yoo xam ne ay nekkukaay la yooyu yëpp dañ dul dugg ci détails yi ndax plan yi am na gis nañ ko ci it ku yàlla dox nga dem ba ca barab ba da nga gis ne liggéey ba ma ngay sori moo am it liñ jagleel université bi mooy taalimul aali te moo am ñetti faculté am na faculté boo xam ne moo yor nja jale ñuy jàngalee lislaam ak lépp mu jëm ci xam-xam yi lislaam yi jëm ci ñi nga xam ne li sëriñ bi jiita loolu ne li jiitu ci xam-xam yi mooy pas-pas ak xam-xamu fiq bi lay xamal nooy jaamoo yàlla ak nooy jëflante ak xamu tas xam-xamu tasawuf bi nga xam ne mooy defar sa xol di la jegeel sa boroom loola xam-xam yooyu lañ ciy jiital ak mbooleem xam-xam koo xam ne ku génn ci kulliyatu as sharia wala kulliyatu dirasat islamiyya da nga ko am programme bi ëmb na loolu waaye am lépp loo xam ne dirasat arabiyya la kon mooy faculté des études islamiques et arabes boobu mooy faculté bi ci bi ci jiitu faculté boobu kon ñaari département la am mooy département étude islamique ak département étude littérature et étude arab moo am foofu it beneen institut boo xam ne dañ fay tàggate ci lu jëm ci ak tamwirul islami mooy li nga xam ne mooy finance islamique te lu am solo ndax barab bu mel ni nga xam ne dañ fiy liggéey barabu liggéeyukaay la ci liggéey bi yépp ñu bëgg koo teg ci anam woo xam ne bu dëppoog ni ko sharia bëgge la kon loolu bunt la boo xam ne ci luñ liñ soxla la moom it waajal nañ ko ci bàyyi nañ ko ci xel kon foofa infrastructure ya fa ya fay ya fay am ci dana bokk na ci la fay am mooy benn centre de recherche boo xam ne lépp lu ñu soxla gëstu ndax loolu bokk na ci li nga xam ne lu ñu aajowoo la lépp lu nit soxlaa gëstu ñu man ko fay gëstu waaye lépp loo xam ne ay centre documentation lépp document bu bu ñu soxla man mu man faa am loolu bàyyi nañ ko ci xel ak i laboratoire ak i ak i ak i ak i bureau ginnaaw faculté boobu mooy kulli dirasat islamiyya wal arabiyya am na beneen faculté boo xam ne moom moo jëm ci wàllu métiers yi ak wa jëm ci wàllu technologie mooy uliyetu technologie wal xiraf ku ne xam na ne barab bi barabu liggéeyukaay la te xam nañ ne fi liggéey fi jamono ji toll xam-xam moo ko war a lal du rekk ay loxo waaye xam-xam moo lal mooy lal mooy lal liggéey boobu ca xam nañ ne développement tey mu ngi aju ci wàllu technologie ak ay métier moo tax foofu ñu jagleel ko faculté boobu nga xam ne boo fa demee da nga fa fekk lu war a mat juróom-benni juróomi département ndax da nga fa fekk departement boo xam ne dafa jëm ci wàllu artisanat te foofu lañ fa gën a fësal ci jamono ci ci ci bi mooy lu jëm ci der ak lañ ca mën a def ak lañ ca mën a liggéey te loolu ko nga xam ne lu yaatu la lu am njariñ la ci barab bi ñu nekk am na fa département boo xam ne ci batiment ak travaux publics la jëm ñetteelu département bi mu jëm ci électromécanique ñetteelu ñeenteelu département bi jëm ci wàllu informatique ak télécommunication mooy lu jëm ci xarala yi jëm ci jokkaloo ak bu jëm ci juróomeelu département bi mooy bu jëm ci haute étude commerciale lu jëm ci wàllu yaxantu ndax lu lépp dañoo xool barab bi li mu soxla ci ay man-man loo xam ne tey développement réew bi soxla na ko mu ñu jiital ñu jiital yooyu ak yeneen yoo xam ne euh, waajal na ko ci ci ci ci wàllu googu ndax ku ne xam ne euh, am na yeneen domaine yoo xam ne ci priorité yi la bokk lu mel ni santé ci la bokk mu am beneen kulli beneen UFR mooy kulli rek mooy benn lu jëm ci wàllu mbay ak lu jëm ci wàllu aliment ak technologie alimentaire mooy science agronomique ak technologie alimentaire loolu benn faculté la boo xam ne moom it boo demee da fa fekk lu man ñetti département département boo xam ne moo jëm ci wàllu agronomie nga xam ne lépp lu jëm ci mbay ak la ca aju te lañ koy fa lañ koy tàggatoo ak boo xam ne dafa jëm ci élevage ak production animale mooy lu jëm ci sàmm ak lu aju ci lu ca aju ak boo xam dafa jëm ci technologie agro alimentaire mooy ni ñuy soppaxndikoo li ñuy pay ba nekk lu ñuy jëfandikoo muy industrie bu yaatu bu am solo loolu mooy li nga xam ne mooy ñetti département yi nga xam ne moo nekk ci faculté boobu kon ñetti faculté yooyu mooy enseignement supérieur kon nga gis ne loolu mooy li nekk ci daara ji nga xam ne moom la sëriñ bi naal kon daara ji ñu bàyyi xel ne complexe la boo xam ne dafa am daaray alquran ci biir am daaray majalis ci biir am ab université ci biir kon loolu lu mat a ràññee la faculté boo ci dem am na ay ba saal yu yaatu yoo xam ne yu ñuy mën a jàngale ak di fa def ay jotaay yu mag ñu koy wax ay amphithéâtre am na ci boo xam ne bu mag lay doon euh, boo xam ne man junni ak juróomi téeméer ñoo fay ñoo fay mën a nekk ak yoo xam ne moo gën a ndaw nga xam ne dana mat juróomi téeméer dina am ay restaurant dina am ay euh, dëkkuwaay ci biir faculté yooyu moo am nag beneen pàcc boo xam ne moom moo jëm ci li université bi yëpp bokk mooy bâtiment administratif yi ak li ñuy wax service commun nga xam ne université bi yëpp pàcc yëpp a ko bokk muy lu mel ne rectorat li nga xam ne moom mooy saytu doxinu barab bi lu mel ne bibliothèque boo xam ne ñépp koy bokk muy daara ji a koy bokk moom la médiathèque nga xam ne fii technologie toll ak nouvelle commu nouvelle nouvelle technologie de communication lépp léegi dañ koy numériser maanaam di ko jëfandikoo ci ay ordinateur ak ay son ak ay vidéo dina am barab boo xam ne loolu lañ ko jagleel dina am it euh, jàkka yoo xam ne ku fa dem da nga gis ne tey sori na macha allah. dina am barab boo xam ne dalukaay lay doon dina am centre de santé kon loolu ci tënk rek mooy li nga xam ne moom la projet bi làmboo ci barab bii nga xam ne mooy barab bi sëriñ Abdul Ahad jagleeloon université bi ci Cheikh Saalixu radiallahu anhuma ñëw àggale ko mu sori boobu foofu la mooy barab bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha def mooy mu jàmma Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin liggéey yooyu nga xam ne nag kuréel yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Badawi jiitu jiite cañ doon saytu liggéey boobu am na yeneen yoo xam ne sottal nañ ko ci wàllu cam aju ci projet bi doon yoo xam ne yu bënta ñàkk la mooy lu jëm ci li ñuy wax cadrage juridique ak institutionnel maanaam mbir mu taxaw mu nekk am na aw doxiin bu ko war a lal am na ay texte yoo xam ne ca lay tënku loolee nag tëral nañ ko ba nga xam ne dana dëppoo doxiin bi dana dëppoo li nga xam ne noonu la dëkk bi bindoo noonu la dëkk bi laaj noonu la daara bu nekk Tuubaa war a mel waaye dina doon texte yoo xam ne dina dana tax fépp képp koo xam ne génn nga fi foo dem ci àdduna bi diplôme ba nga yor dafay nekk di diplôme bu reconnaître kon mooy ner norme yi nga xam ne ci la daara di taxaw ci la jàngukaay bu mag bu kawe di taxaw muy université norme yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel ci li nga xam ne moom lu ñuy sumb ndax mbir mi kat koy sumb dañ koy sumb ngir àdduna bépp man cee jariñ ku fi génn yi foo dem ñu gis ne fii nga génne kat li fi nekk qualité la ca ñi nga xam ne ñoo doon liggéey loolu yàlla dafa dogal mooy ñi nga xam ne seen xam-xam gën a kawe ci wàll boobu ci biir réew ñooñu ñoo ànd ak mm, kuréel gi sëriñ bi samp liggéey liggéey boobu kon jot nañoo def texte yi nga xam ne moom moo yor moo lal université bi moo lal daara ji ni mu war a dox yépp texte yooyu yépp noppi na ca ñu sukkandiku nag ci texte yi nga xam ne moom mooy dox ci mooy mooy dox ci biir réew mi cay cay tënk ni université di doxe waaye nag bàyyi ci xel maanaam spécificité bi nga xam ne Touba am na ko waaye comi comité boobu nga xam ne mooy comité de pilotage bi nga xam ne ñoo doon yor liggéey bi lépp loo xam ne lu complexe bi aajowoo la ci ay ña fay liggéeyee moo xam ñuy jàngale lañ war a doon wala ñu fay yor yeneen liggéey ci biir loolu lépp tënk nañ ko seeni compétence yañ war a am profil yañ war a am xerañte gañ war a am loolu lépp lu ñu tënk la ba mu nekk document boo xam ne bu noppi la waaye comité boobu it lépp loo xam ne lu ñu liggéey la ca barab ba ca architecte yi doon ko defar ci ay plan ñoom ñoo ci àndoon ak ñoom ngir mu dëppoo ni ab jàng war a tëdde ngir mu dëppoo norme yi nga xam ne barab bu ñuy jànge la mu laaj ci faculté bu nekk ak yañ soxla loolu yëpp validation ba comité boobu comité comité boobu euh, def nañ ko ba ci sax ni daara ji war a bindoo maanaam identité bi mu war a am ci identité visuelle li ñuy wax identité visuelle lu lépp nga xam dafa war a dëppoo dëkk bi war a dëppoo euh, suñu li ñuy wax suñu culture maanaam culture yoon murit dëppoo environnement bi lépp dañ ko cee bàyyi xel ba loolu lépp validé nañ ko ba nga xam ne ñi cay liggéey ña nga ca ba sori ca waaye nag mu am kuréel yu am solo yoo xam ne taxaw nañ am yuñ féetewoo ci liggéey bi mooy ñi nga xam ne ay bibliothécaire lañ ak i ak archiviste yooyu ñëpp ñi ci seen xam-xam gën a kawe ànd nañ ak Euh, comité bi liggéey liggéey bu am solo bi nga xam ne ni la bibliothèque war a mel ni mu war a doxe loolu ñi ci seen xam-xam gën a kawe liggéey nañ loolu lépp ba nga xam ne tey bibliothèque bi norme internationale lay yor lépp loo xam ne li qualité bu gën a baax moom moom mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ noonu lañ tërale bibliothèque bi nga xam ne moo am ci ci biir liggéey bi waaye am na kuréel boo xam ne ñoom ay informaticien lañ ñoom it dañoo lépp loo xam lu jëm ci site bi la ñoom ñoo ko liggéey lépp lu jëm ci luy lu ñuy xamle liggéey bi di ko jaarale ci jumtukaay yu xarale yi ñoom ñoo ko doon saytu mu am beneen kuréel boo xam ne ñoom ñoo féetewoon woon traduction bi muy tarjama kon loolu dañ koy wax ngir liggéey bi fam jaar ay phase la ndax commission pédago commission pédagogie yi ak wala commission commission technique yi ñoom ñoo liggéey programme yi ak lépp programme yoo nga xam ne architecte yi ci lañ sukkandiku ba defar plan yi yépp waaye mu amaat yeneen kuréel nag yoo xam ne euh, mooy informaticien yi mooy traducteurs yi mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ay bibliothécaires yooyu yépp ay kuréel lañ yoo xam ne ñuy liggéey nañ ci liggéey bi mu mel nekkoon liggéey bi képp koo xam ne tey taalibe nga te am xam-xam boo xam ne gis nga ne xam-xam bii kat barab bi soxla na ko complexe bi soxla na ko indi nga ko gaaral ko bokk ci liggéey bi mu doon loo xam ne kenn ku nekk da koo def muy xidma boo xam ne da nga koy liggéey da nga koo dugal ci liggéeyu sëriñ bi ba nga xam ne tey tënk nañ document boo xam ne rapport la boo xam ne lépp lu ñu fi wax ci ay programme ak ay tex ak ay document yu aju ci complexe bi mi ngi ci biir document boobu tey buñ ko xoolee ci ay page àgg na ci trois cent vingt-huit page maanaam ci ay xët àgg na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett kon loolu luñ tënk la rek ci liggéey bi euh, ni mu tëddee ak li ci juddoo ngir ñu mën a xàmmee ne bu ñuy commission yi doon liggéey kat liggéey nañ ci système bu yaatu système boobu nag ci biir lañ jukkee li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ñu tàmbulee ko ci daara ji loolu nag xëy na mooy tomb biñ ciy mujje mooy liñ mën a jàppe ay maanaam luñ ci mën a séentu njariñ wala ñuy wax ay enjeux yu ci mën a nekk njariñ yi moom jàpp naa ne lu jëm ci wàllu yar ak jàngale fii ci fi réew mi toll fi àdduna bi toll rawatina mooy loo xam dañ koy sukkandiku ci yaru Sëriñ Tuuba ak njàngaleem Sëriñ Tuuba loolu soloom yaakaar naa ne lu rëy la lu am solo la ndax xam nañ ne éducation ci boppam ak yar ak jàngale mooy yoon wi gën a baax ci defar nit ci waajal ko ngir ak dundam mën a jag ci àdduna waaye mu mën a texe ëllëg mooy ngir nit ki am saadatu daare yi mooy texe àdduna ak texe ëllëg loolu li ca gën a am solo ci teg ko ca yoon wa mooy yar ko waajal ko jàngal ko moo tax yonent yi fi mos yépp seen yitte mooy defar doomu ma yar ko moo ci jiitu loolu yi sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu xam nañ ne yar moo doonoon mission ju jiitu ndax yoonu murit bu juddoo yar moo tax mu judd ndax yoonu yar la yoonu defare la te moom yar bi nga xam ne ci la jaarale ñi àndoon moom mooy yar bi tax nit ki texe tey ndax dana ko waajal ci jikko yi mu war a am lim war a xam waaye lim war a man ba mën a dund ci kaw suuf mën a jaamu yàlla loo xam ne ëllëg dina tax mu texe kon moom yar bu mel noonu la yar ba tax yar boobu moo jur ay génération yoo xam ne ay royukaay lañ ci wàll yépp moo jur lii nga xam ne moom lañ gis muy yoonu murit ñu xam ñu xame ko ci liggéey ñu xamee ko ci aw nekkiin ak melokaan woo xam ne wu ràññiku la kon yar boobu nga xam ne moom na sëriñ bi doon yar bépp bu ñu am bu ñu xamee ne kat lii taxaw yar boobu moo ko lal yar boobu mooy philosophie yar boobu mooy vision loolu jàpp naa ne loolu rek doy na wax solo si am ndax xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu yar bi mu yar da ko teg ci liimaan lislaam lexsaan moo ci jiitu maanaam nit ki mu yar ko ci pas-pas gëm yàlla bu wér gëm melokaan suñu borom yi waaye di nekk nekkin wu dëppoo gëm boobu jaamu yàlla li mu ware waaye defar xol ak jikko loolu moo jiitu ab yaram waaye bokk na ci liñ liñ xam ci yarub sëñ bi mooy boole xam ak jëf yooyu yëpp ci ay waxam ak ak doxalinam ak ñim yar ñëpp loolu lañ ci gis waaye bokk na ci yar ay nitam ci makaarimul axlaaq waaye yar leen nit ci ñu sukkandiku ci seen bopp manal seen bopp ngir ñu mën a am gore ci jaamu yàlla mën a sàmm seeni bas-bas mën a sàmm seeni principe loola ngir ca teg ko ci sukkandiku ko ci liggéey loolu ci yarub Sëriñ Tuubaa la bokk waaye yar nit ki ba du am benn complexe ndax xam ne ku suñ borom bind def na ci yow ay man-man ak i xam-xam ak loo xam ne yow boo ko saytoo bu baax a baax kenn warul laa mën a raw ci àddina kenn warul laa mën a raw ci lu baax loolu yëg-yëg boobu nga xam ne ñi sëriñ Tuubaa yar dëgg-dëgg da koy fekk ci ñoom waaye yar boo xam ne it nit ki dafay ubbiku ci lu baax ak fu mu mën a nekk ci àdduna nekk yar boo xam ne mën nañ ne bu am na lu ñuy wax efficacité ndax jeexit yu gaaw lay am waaw jeexit yu gaaw lay am ci ñi nga xam ne ñoom ñoom la doon yar kon yar bu mel noonu àdduna daf koo soxla dañoo soxla dundal ko dañoo soxla jëmmal ko kon bépp projet boo xam ne man nga ne la ko tax a jóg mooy dundal yar boobu dëgëral yar boobu sàmm yar boobu tasaare yar boobu loola kon soloom dana kenn kenn mënut a xam fa mu àgg rawatina ñu toll ci jamono jii nga xam ne nag crise yi bari na lool jamono yi crise lañ nekk jikko yi nekkiin wi ak sax lu jëm ci wàllu koom-koom jafe-jafe yu bari la ci àdduna yu dund rawatina réew yu mel ne suñu réew yi kon jàpp naa ne loolu ku ko xool muy défi yi nekk ci suñu kanam tey am mu assasa bu mel nii boole ci yeneen yi nga xam ne moom mbirum baatin la ndax liggéey la ci boppam liggéeyal Serigne Touba la waaye loolu nga xam ne rek lu àdduna bi soxla tey la ko seet da gis. solo si nga xam ne am na ko kon buñ bëggee xool enjeu yi loolu mën nañu wax ne dañ koo maanaam dañ ko dañ koo dañ ko dañ maanaam généralisé la waaye boo xoolee ci biir murit bi xool ci biir réew bi xool ci biir lislaam bi ci boppam foo ci xool rek da gis li nga xam ne jàngu bi mën na koo mën na koo mën na ko mën na koo indi maanaam mooy ay enjeux yu nekk ci biir ay njariñ yu nekk ci biir bu ñu xoolee ci yoon wi daara ji wala ma projet bi dafay jëmmal gisinu Sëriñ Tubaa ci yar boobu ma waxoon yar boo xam ne day boole jëf ak xam ak melokaan muy ay teggin ak i jikko loolu nga xam ne sëriñ bi tënk na ko fenn fu nekk ci am jàngleen waaye daara ji dana waajal ñoo xam ne danañ mat sëkk ci taxawu diine waaye taxaw yoon wi ci jubbanti nit ñi ci jaar leen ci aw yoon ndax loolu dañoo soxla forme ñoo xam ne responsabilité ya ñu war a yenu ëllëg dinañ xam nuñ koy yore dinañ ko am kàttanul yor waaye dinañ am man-manu yor ak compétence yor waaye daara ji li mën a indil yoon wi ci dundal li nga xam ne mooy patrimoine bi ñu fi sëriñ bi bàyyi te ku ne xam na ne sëriñ bi li mu fi bàyyi ci am njàngale adduna bépp soxla nañ ko tey te ni ñu ko war a tase ni ñu ko war a yaatale loola ay mu assasaat yoo xam ne dañ koy mën di gëstu di fa mën a def ay thèse ay mémoire loolu ci gën a gaaw ci yaatal ko la te loolu bari na ñu soxla lool te mu jafe te xëy na yi mu am mu assasaat yu mel noonu wala institution yu mel noonu ñàkk gi ñàkk bari tax na ñu am ay gàllankoor yu baree bari ci ni ñu war a yaatale njàngaleem sëriñ bi niñ ko war a ni niñ ko war a tase am lu bare bare lu ci des kon lu mel nii bu ko xam bu bu bu bu taxawee dañuy am yaakaar lool ne dana lijjanti yu jafe yu bare bare yoo xam ne yu jafe woon la ci wàllu dundal eh, donale fi sëriñ bi bàyyi ci tasaare ko ci yaatal ko ci àdduna bépp man cee jot waaye projet bi bokk na ci rek mobilisation bi mobiliser taalibe yëpp ci lu gën a soññi seen bopp ci liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam loolu am solo la ndax tey gis nañ ko loolu sëriñ Ama mi ngi ko mi ngi ñuy teew domaine bu nekk compétence yi ci gën a kawe tey ci ay taalibe bi wu wane bëgg nañoo bokk ci liggéey bi ñëw bokk ci liggéey ci seen co man-man bopp ci seen coobari ci seen moyen bopp loolu nag lu am solo la ñi nga xam ne tey yàlla da leen jox man-man ñoom ñu jóg jàpp ci liggéey bi ci anam googee nga xam ne moom ci la leen yàlla baaxe nga gis kër yi yi ci kër Sëñ Tuubaa yépp seex yépp ñépp tey tàkku mobilisé mobilisé wu laxasaayu ànd ci ginnaaw Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir liggéey bi sotti loolu jàpp naa ne luy gën li gën a jëmale kanam yoon wi la ndax yoon wi yoonu liggéey la yoonu pësteef la ca gis nañ daara ji li nga xam ne feeñal na ko ci wàllu boobu waaye daara ji kon dafay bokk rekk ci luy jëmbal bëgg-bëggu sëriñ bi nga xam ne sëriñ Mbàkke Buso waxoon na ko ci tuubaa daara joo xam ne lépp lu waay xam soxlaa xamlu mën na ko fee xamlu see loolu nag boo gisee gis-gis bi sëriñ Muntaxa am mën nañu daara ji da koy jëmmal waaye du yam ci jenn daara du yam ndax ak système la bu yaatu am na ñoo xam ne ñu ngi ci nekkoon di def lañ man ba gën a ñu ngi ci nekk lii bu ñëwee nag dafay gën a yokk loolee ba li sëriñ bi bëgg ci Tuubaa man a am waaye incha allahu xam nañ ne daara ji ak faculté yi ci nekk jëm ci wàllu métier maanaam ci wàllu formation professionnelle loolu dana doon loo xam ne dina dundal wàllu koom-koom dana ubbi ay bunt yu baree baree baree bari ci ñi nga xam ne noonu la ñu xamee murit ñuy ay liggéeykat liggéey boobu suñ ko suñ ko gënee tege ci xam-xam gën a tege ci li jamono indi ci ay jumtukaay yu xere loolu yaakaar naa ne mën naa yóbbu réew mi fu sore sore sore kon mën nañoo def mën nañoo dem ba li sëñ bi bëggoon ci ñun muy am autonomie ci wàllu koom-koom ndax autonomie ci wàllu koom-koom buñ koy wax waxuñu ko ngir mu nekk comme ak capitaliste buy dajale alal waaye nga moom sa bopp ba ni nga war a dunde sa diine nga mën koo dunde sa nga moom sa bopp ba ni nga war a jaare ci principe yi nga gëm nga mën caa jaare noona loolu liggéeyu koy maye te ku ne xam na nag loolu am na jéego yu bari yuñ ci jéegoo waaye nag am na lu baree bari lu ci des loo xam ne bu ñu amee barab yoo xam ne dañ fay former nit ñi buy former ay cadre ci wàllu googu dina gën a gaawal liggéey boobu dina gën a gaawal dox boobu bu ñu xoolee ci jëmmi réew mi ndax lu ñu wax ne njariñ la ci yoon wi loolu njariñ la ci réew mi ndax ku ne xam na ne bu ñuy liggéey Tuubaa murit yi seen liggéey lépp ci biir réew mi lay jóge ci biir réew mi lay dellu siwaat kon fu ñu àgg rek réew mu àgg foofu kon lu ñu wax ci enjeu boo xam ne dañuy wax enjeu la boo xam ne pour ngir yoon wi day nekk enjeu boo xam ne pour réew bi la waaye bu ñu xoolee ci réew mi ci boppam mën nañoo tudd yeneen yoo xam ne ndax daara yoo xam ne projet bi dafay defar ab citoyen citoyen boo xam day xam li war a xam man li war a man ba noppi am jikko yu rafet yoo xam ne dina mën a participer bu baax ci développement réew mi waaye valeur yi nga xam ne moom la Serigne Touba jàngale bu tasaaroo ci réew bu mu tasaaroo loolu njariñ la yu dul jeex ndax valeur liggéey valeur jàmm valeur mën a muñalante nga xam ne tasaamo ak yu mel noonu nga xam ne sëriñ bi jàngale na ko loolu réew moom tasaaroo loola jàmm lay indi ci réew mi ak déggoo lay indi réew mi lay indi ci réew mi ca valeur mooy yi nga xam ne moo laltaay mooy cëslaayu euh, daara ji nga xam ne moom la sëriñ bi naan waaye li nga xam ne jafe la ci réew mi ci wàllu système éducatif daara ji mën na mën na cee saafara lu bari ndax ñaari doxiin yu am ñii di jàng njàngum diine ca duñ ca boole eh, mu am ci ci ci wet gi ñoo xam ne njàngum xëy na suñu wàllu ci tubaab bi la màcc loolu nga xam day mel ne ñaari système yu benn la daal di ñëw nag fexe ba indi système boo xam ne ñoo ñëpp dañ cay duggante mu am ay passerelle ci biir nit ki mën a dugg ci daaree alxuraan ji ba dem programme yépp noonu lañ ko tëggee mu jóge ci suñu li nga xam ne mooy suñuy pas-pas mooy suñu ay valeur mooy li nga xam ne tey ci lañ war a mën a jaare ba développé wu loolu it lu ama am solo loo xam ne njariñ lay indil réew mi yépp te it nga bari na jafe-jafe yu ñu am ci ñiy jàng nga xam ne bala ngaa jàng-jàng bu kawe dangaa génn réew mi loolu ci yi nga xam ne daara ji dina ko saafaraal ñiy jàng la bokk dana bokk ci saafara yi nga xam ne mooy balaa kenn mën a jàng génn ci biti loolu incha allah ci li muy saafara la bokk kon daal daara ji dana sàmmal réew mi identité bi nga xam ne mooy identité bi dëppoo pas-pasam ah, waaye du dana dana ko may mu ubbiku ci xam-xami àdduna bi ak lépp lu baax ci àdduna bi ñu mën koo boole maanaam mën a téye li nga xam ne mooy suñu val ay valeur sàmm ko waaye ubbiku ci lépp loo xam ne lu am njariñ la ci àdduna ak fu mu mën a nekk te li nga xam ne mooy jafe-jafe la yoo xam ne système bi ni ñu koy jànkoonteeg moom ci réew mi tey loola daara ji dana ci indi lo lu am solo bokk na ci jafe-jafe yi mooy ñi war a jàng ñëpp jàng mooy accès li ñuy wax problème mu accès ñëpp am njàng loolu ku ne xam na ne liñ li soxlaa jàng jàng mu kawe tey ak liñ am ci barab yuñ ko mën a defee xaw naa néew lool kon daal ji dana indi ak yokkute ci wàllu wàllu googu ci wàllu rawatina surtout sax ci wàllu enseignement supérieur ndax xam na ne état lu ne mi ngi koy def di góorgóorlu ngir yokk barab yi ñuy jànge njàng mu kawe mi jéem a di di li ñuy wax diversifier maanaam fexe ba li muy joxe wuute ngir ñu bari man cee gis seen bopp loolu yëpp mu ngi koy mi ngi koy ngi koy def ngir yaatal nit ñi mën a àgg ci njàng mu kawe mi ca teewul ba tey euh, mu ngi am ay jafe-jafe daara ji kon complexe bi ci wàll googu mën naa amal njariñ lool réew mi ci yokkal ko ay force wala occasion ci nit ñi mën a àgg ci am njàng moo xam ne njàng mu am mu am qualité la tey bokk na ci jafe-jafe yi wàllu éducation ci àdduna bépp mooy wàllu financement ndax dafa diis dañoo dem ba gis ne jàngu am njàng dëgg-dëgg réew mi ñëpp ko war a yor ñëpp ko war a gàtt buñ gisee nag barabu mel ni nga xam ne tey li ci sëñ bi wane mooy wane ne moom moo ci jiitu waaye moom ñëpp a ko bokk ci ñëpp ànd ci ak moom loolu modèle la boo xam ne lu ama am solo la ci ci ci réew mi tey euh, mën nañ fee jaare lijjanti ay jafe-jafe yu baree bari ci wàllu ci wàllu financement waaye buñ xoolee loolu ci réew mi waaye même bu ñu xoolee l'islam ci boppam maanaam monde islamique bi tey lu baree baree bari ci ay njariñ mën nañ koo jële ci daara ji ndax daara ji barab la boo xam ne dana nekk barabu daje ci ay jullit yu wuute yu jóge ci barab yu wuute di fa jàng di fa jariñante di fa weccoo mu nekk barab boo xam ne barab la bu àdduna bi di jublu si loolu jàpp naa ne njariñ la lay lu lu jariñu lislaam lay doon li ñuy wax tabaadu dëgg mooy échange dëgg-dëgg ci lay mën a ame du rek dañuy jëli ci biti waaye na na na na ñuy na ñuy ñeneen di jóge feneen di fi jël si loolu mooy dundal lislaam mooy tax ak xamante am lislaam bëgg mooy tax dimbalante am ci loolu day jëmale kanam lislaam waaye dundal xam-xamu lislaam rawatina ci anam goo xam ne dinañ gën a xam lislaam ndax it nag lislaam jànkoonte naa ak ay interprétation jànkoonte na ak ay yeneen culture yoo xam ne rax nañ ci ba am na bët yu ñuy xool lislaam waaye ñi nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa jàngalee lislaam muy anam goo xam ne adduna bi buñ ko xamee ba découvrir ko njariñul lislaam bépp lay doon ndax lislaam bu wóor boo xam ne lépp loo xam ne lu ëppal la nekku ci doon ay valeurs kese loolu mooy li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa jàngale ca daara ji loolu lay jëmmal loolu lay jàngale ci loolu tey lislaam bépp soxla nañ ko waaye nag li nga xam ne moom moo lal liggéey bi yëpp ci sëriñ bi wax ko kàddu yi nga xam ne moom la waxoon bu muy teg xeer yi yëpp dégg nañ ko mooy i'laa'u kalimatillah bu ñuy i'laa'u kalimatillah kon loola moom mooy lislaam yëkkati baatub laa ilaha illallah yëkkati lislaam tasaare lislaam kon liggéey bi loolu mooy fondement bi loolu moo ko lal noonu la ko waxe liggéey bi lépp liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci yëkkati lislaam kon nga xam ne it kon képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci yaa ngi liggéey ci lu yëkkati lislaam ndax loolu mooy yéene sëñ bi loolu it la ñaan yàlla kàttanal ci ñi ci nekk waaye loolu la ñaan képp kuy mën a ñëw ëllëgee suñu borom kàttanal la ba liggéey bi bañ a laal suuf noonu la ko waxe kon loola doon li ñuy daanee la rek ngir xam la ne li nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko muy liggéey bu am solo boo xam ne da koo sof rek ci liggéeyub ñi ko jiitu woon ñoom it ñu sof ko ci liggéeyub bi nga xam ne mooy liggéeyub sëriñ Tuubaa ak bëgg-bëggam ak yéenéem doon lu ama am solo ci réew mi am solo ci yoon wi am solo ci adduna bi yëpp rawatina monde islamique bi yëpp loolu liggéey la boo xam ne kon laaj na kenn ku nekk gën a góorgóorlu gën a lépp loo xam ne loo mën a def la nga def ko képp koo xam ne yaa ngi doon wax ne kan man su ma fekkoon ba ñuy def jumaay jarim wala bu ma fekke woon tey ba ñuy indi raay bi Tuubaa wala bu ma fekkee woon tey ba ñuy tabax jumaay Tuubaa wala wala lii tey mooy taxaw taxawaay liggéey yooyu ndax mooy sémb la boo xam ne sëriñ bi liggéeyal sëriñ Tuubaa la ciy jublu te mooy sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf kon nag kenn ku nekk sa yitte jëpp tey mooy yoonu murit wépp ak jullit yi lislaam ñor yëpp tey ñu ngi ci ànd ak sëriñ bi loolu lu am solo la ndax bi sëriñ Ahmad am na ay kilifay diine yoo xam ne mën nañ ne bokkuñ ci yoon waaye bind nañ ko ay leetar di ko wane seenu bëgg ci liggéey bi ak seenu ànd ci gis-gis yi bii nga xam ne moom la Cheikh mun Muntaqa am kon mu mel ne li fi lislaam bi yëpp la waaye kon murit yëpp war nañoo gën a laxasaayu gën a góorgóorlu jàpp ne seen yitte ji war a am tey mooy ñëpp taxaw ci liggéey bi ba ni ko sëriñ bi bëggee mu doxee noona mu sottee noona mu antoo noona waruñoo am benn jot waruñoo tal benn détail tey ca ku ne xam ne réew mi li ñuy wax ay maanaam distraction yomb na fi maanaam nga war a nekk ci li nga nekk war a jublu ci li nga jublu ñu dugal la ci ay détail ba nga la nga war a jiital doo ko jiital ba nga war a fàtte ba ngay fàtte la nga xam ne mooy mooy mooy mooy moo moo tax moo war a nekk sa sa yëngutu ak sa dal loolu lu mat bàyyi xel la ci jamono ji ñu toll nga xam ne euh, yu bare bari ay détails la ci lii nag mooy liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi mu woote ñëpp war ci ànd te muy njariñul yoonu yëpp njariñul réew mépp njariñul lislaam bépp kon xëy na loolu dañ ko ci tënk di wëlbatikuwaat di sant bu baaxit it euh, sëriñ Axma nga xam ne moom moom la sëriñ bi jiital ci liggéey bi moom it mu ànd koo mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ñi ngi bokk ci yoon wi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci bitim réew di di ànd ci liggéey bi ci seeni xalaat ci seeni xam-xam euh, ci seen man-man ci seen alal ñu ñëpp ñu leen di ñaanal suñu borom subhanahu wa taala yàlla def liggéey bii Cheikh Mouhamadou Mountakha sottal ko ñu ànd kook moom te fekk ko bi may ñëw léegi nag ak mbokk damay yóbbante ak ñaan ne ñi nekk bitim réew day soxla nañ ñaan kon ñi ngi koy diis sëriñ Axma ah di ko sàkku ci ñëpp ñoom it ne neñ ñaanal yàlla defal leen daw feex ndax bëgg nañoo bokk ci liggéey bi tey jafe-jafe yi bari na ci bitim réew kon ci barke borom barab bi barke weer yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal te it xam nañ ne sëriñ bi mu ngi leen di ñaanal yàlla ñaan yooyu fekk fa ñu nekk suñu borom ñi ngi koy ñaan lii nga xam ne mooy mbas mi tasaaroo ci àdduna bi yàlla na ko fi jeexal kon yàlla na suñu boroom nangul suñuy jaamu yàlla yépp ci koor gi ñu nekk nangul suñuy ñaan yépp ñi ngi jéggulu bu baax a baax di delloo kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal